en général gestes yi ku daan takk domb tànk moo ko daan def. tay buñu ñëwé ñëwee ñu wax ni dañuy am fièvre bu am ci réew mi Ablaye Ndiaye Ngalgou yëg ko rek ni non actuellement dañuy wax ni dañuy wara utiliser des gels antiseptiques Madar eau de javel mu débloqué une somme de 10 millions def ko ci ñu ni ko fan nga koy yobbu mu ni dañ koy yobbu ci les services yi nekk Tivaouane ak daara yi nga xamni xalé yi dañ fay jang te dañ leena confiner tay ñun ñoko yobbu man mi ci service yépp yobbu nañ ko service bu nekk Tivaouane yóbbu nañ ko fa loolu bu ko neexoon mu jékki-jékki jën ci biir loolu mu ne nañ ci jël loo xam ne dañ koy jox la population képp kenn ku nekk mënuñu la jox benn kees mais dem nañu ba mu gi ñu jël benn madar benn eau de javel benn gel antiseptique ñu def ko ci chache ñu jox ko la population tey bi ñu to yóbboo loolu ñu yëg ni sëriñ bi confiné na taalibe yi ci daara ji boobu ab Pape Sëñ Mbaye Abdou avant état di jël couvre-feu Ablaye Ndiaye mu ni kon daara ñun Tivaouane loolu la ñu aadawoo daara buñ ko jëlee ñu confiné xale yi ni nañu toog ngir feebar bañ ñoo dal dama leen indi sama appui mu jël lu toll ci vingt cinq tonnes de riz vingt cinq tonnes de yi vingt yi moom mooy daara Tivaouane cinq yi mooy daara yu Mboro yëkkatiwaat lu toll ci vingt tonnes de riz jël dix yi yóbbu ko sur la population de Mboro ñu séddale ko ñi nga xam ne dañoo mënta dem uti yenen 10 mu seddelé ko population bu tiwa en tout total muy 45 tonnes de riz kon buñu togaté tay nga dan joxé chaque année sous corps dan joxé tandarma ablay ndjay ni non fim tonni tandarma ken munu ko sor diko lek ablay ndjay ngal gu yëkëti une euh, euh, 35 tonnes de riz pour digënté tiwaone ak mboro kon mbok yi ñu ngi ni avec 1000 grosses de sucre 400 moy dem mboro 600 moy dess tiwaone kon loolu su ko nit defee te ñuy ànd ak moom dinañ ko euh, feddali askan bi waaye dinañ ko jaajëfal ndax euh, euh, waaw góor day yokk jàmbaar beneen bi mooy li ma ci impressionné mooy Abdoulaye Ndiaye amul benn ndomba tànk bu ko lié ak la population pour mu def lii kon su demee di ko def lii ba pare mu naan lu ma am te ko bokk ak askan wi rawatina askanu Tivaouane ak Mboro ma ne ko li tax mu ni Mboro sam papa mooy ancien Mboro Mboro mu nga tëdd ci suufu Mboro sama yaay mi ngi fii tëdd ci suufu Tiwaawan ma juddoo Tiwaawan ñaari suuf yooyu lu mu am ci teraanga te naru ma leen ko delloo yàlla ma ko yàlla jox. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi sant yàlla mi may ñu fekk waat ren ba mën a ñëw andi sunu soutien envers la population donc ñu gis ni at bu nekk dañ koy def. Euh, ren aussi mu dajeek weeru koor weeru koor ku ko wax wax ni weeru partage la donc si la ñu xalaat ñëw andiwaat comme ko def at bu nek andi sunu ndimbal jëmale ko si askan depuis bi crise bi commencé ak légui euh defé na ni bii mooy sunu quatrième ou 5 cinquième acte bo xam ñu ngi koy euh tay boy xol ci ceeb bi liñ fi jot andi depuis bi mbass bi commencé ak légui mi ngi tollu ci 80 tonnes de riz. euh 80 tonnes de riz andi andiwaat nañ aussi tamit ci walu sucre lu tollu ci 1000 grosses sucre li manam 5000 paquets de sucre li jiitu cinq tonnes lañ njëkkoon a joxe mais tey fi li ñu andi tey mi ngi toll si 35 tonnes de riz bon li jiitu loolu aussi tamit depuis bi cas Sénégal amee premier cas ñëw nañ fi andi une enveloppe euh, jël benn enveloppe de 10 millions def si lépp loo xam ni wàllu euh, gel euh, antiseptique la ay eau de javel madar ay masques ay gants ñëw jébbal ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla fii muy ñi nga xam ñoo nekk si service administratif yi. Euh, service sanitaire aussi itam yóbbu leen suñu dimbal remercier le président de la République féliciter ko aussi vraiment si décision yi nga xam jot nako ko jël ndax defe naa ne moom mooy njëkk wane yoon bi ñëw na dimbali euh, euh, wa Sénégal andi len ay ay ay ay ay ay aide si aide aide alimentaire yamul fofu dimbali aussi tamit képp ko xam ne ngi ak secteur bu mën a yëngu defe naa président andi ay ay ay ndimbal donc euh, comme li ñuy wax rek loolu bett mën la lii nag dafa bett daf ñu bett moo tax mu mu mën moo tax lépp loo xamante ni mën nañu ko def pour jàppale askan wi si si wàll bu mën a nekk rek muy si ndimbal muy si communication sensibilisation dañ ko dañ ko dañ ko apporter. Euh, tey ñu ngi yaatal parce que département bi yëpp yóbbu nañ fa ndimbal bi euh, muy Tivaouane muy Mboro département bi yëpp yemul sax ci département bi génn na fii ba Kébémer ba Louga donc ba Fass Touré donc ñu ngi koy yóbbu ndimbal pour jàppale population bi. fi ñu njëkk def mooy si daara lañ ko jiital donc dimbali daar yi lu toll si vingt cinq tonnes de riz tas ko entre Tivaouane ak Mboro donc li des nañ doot ay ndimbal jox ko population bi koo xam ne itte woon na ko koo xam ne soxla nañ ko nañ ko tas que nga politique ou nga nekk politicien ou pas nga nekk Euh, ànd man ou ak foo mën a bokk nga nekk opposition nga nekk société civile da nga ku ku mën a yaatu daal ko yaatu ba ba ñëpp jot si. di wax tamit population pour ñu respecter vraiment mesures yi nga xam ne tamit euh, les mesures préventives yi nga xam ne gars wax nañ ko pour ñu respecter ko maanaam si wàllu masque sol masque bi aussi lu am solo la. Euh, distance de un bi nga xam tamit wax nañ ko na ko na ko xam ni amoo lu dul fard ba mën dox mën donc loo xam ni kenn xamagul fan fan la jëm ak kañ lay jeex je pense que nañu jéem a maytu fagaru moo gën fajo